waaye ñi ko xam duñ ko wecceeg dara dale ma dégg gone wahab yi gu man tijaan laa woon maa ngi damaa xëy génn ci tarixa bi yàlla woon ma sunna ma ne ko xanaa sonn sonn de la yàlla wan mais sunna mukk sonn kan mooy xam Cheikh Tidiane di ko bàyyi Cheikh Tidiane cim du caaxaan cheikh dëgg la bu caaxaan xolal mag mu toll ni alaaji Malik dana ñaan dee ci caaxaan amaatana allahu ala diini nabi wa xubbi cheikhina imaami tayib moo cheikh day caaxaan xoolal cheikh Umar mii ñuy wax ak yéemeem gi yépp doon taalibe ci cheikhu Tidiane ko gën a lépp waxuma cheikh mais xoolal cheikh Mouhamadul Ghali ba muy ne Madina du sol daal la ngir tarbiyu ko benn yëre yëreem yëpp lu mu am si jox Cheikh Mouhamadul Ghali ndax lan taataan leeru Seexu tiijaan gi nekk ci moom Cheikh Mouhamadul Ghali foofu la faatoo ñu denc ko ca wetu Xadiija mu jaawar Seexu dana topp ca dana topp caaxaan moom maam Ablaye Niass Baye maam Khalifa Niass euh, maam Xaadim euh, ma jaxate kala alladi ala llaahi tawakkala borom moo man lii bi ustaadin aruudu bi wirdihi yaqiini yaqiinan kulla hawlin bi mawridi dem banaan talabtu fa jitu naasa min kulli mawtini wa jubtu fa jultul biida min kulli fëtfëdi ila an aqarru bayna baadin wa xaadirin bi an lam yajud dahrun bi hada wa yujadi wa hal yakmulu al awsaafu illa li waaxidin yu kën naa abal abbaasi najla muhammadi xaadima jaxate kala raw ñëpp naan téere yi toog yëg ne téere yu doyut mu ne fan laay jëlee sëriñ bu ma yeggalee ci yàlla qualité sëriñ yi muy wër muy dem di ko présenté gox par gox sëriñ bu mel nii bu mën a lii taalibeem sëriñ bu mel nii bu mën a lii taalibeem fu mu dem ñu ne ko sëriñ bu mel nii amu fi mu dem mam yàgg xaati fu rabbaani wax ak moom ne ko sëriñ bi ngay ut mi ngi ci biir suuf muy Cheikh Sidi Ahmed Tidiane yi mu ne mujj gi ci laa jël sama buum buum takk sama baat ne cheikh am doy nga ma sëriñ xaadima jaxate kala kooku dana topp caaxaan moo ci yàlla yàlla dimbale ñi ko xamul ba xam ko cheikh <laughs> ñam dool li gaangoog moo tax Babacar ne fa ëndal mu tëyemu in arafta kefeen yi man daal maa ngi maa ngi sa dof bi boo xamee ne dama laa bëgg ba dof ci yow rek doy na tool yi nag lu mu bari bari man Babacar xam naa daal man daq ar yan laa yaqaadu yamu juhu man daq aryan laa yakaadu yemujjuhu ku ñam lem coow li lu mu bari bari ñu naan la neexut doo ko yàbbi ñam lem ñam lem ñu naan la neexut sëñ kër mu ne laa du yakaadu yemujjuhu mukk doo ko yàbbi de keroog dama wax lu wax bu benn wax danaa koy répété léeg-léeg ma ne dund yi naxaate mën naa ne mais dee di naxaatee yombut loolu moom mënul ne kuy naxaate ba faatu sa naxaate yi jeex na c'est fini dee nga suul nañ la jeex naxaatee jeex na waaye nekk ci biir bàmmeel di naxaate waaye mag buy naan ndox mu tàng xam ngeen ne waaye suukar saa tax nag ah waaw ñii dem Tuubaa ak Tiwaawan ak Njaas mais dafa am lu ñu fa gis rek buñ fa gisutoon seen bopp toog nañ ba tey koskaas gii di sol seen tën yi di ñaq di sonn di dem Tiwaawan ci naaj bu tàng bi buñ ci gisutoon seen bopp toog nañ ah da ngeen gis seen bopp kat liggéeyul neen kenn seen bopp ngeen di liggéeyal xamal la rek ku xamul nag léeg-léeg xamul waaw ba tax na bu <laughs> ma ko tuddee moo ma dugal ci yooyu yow xaalam ci Seexu Tijaan ndeysaan waaw ña ko xam daal moom bu ñu amutoon oto jaral na leen dox ak tànk ba foofa ndax ku fa dem rek boo ñëwee yëg ne def nga fa waaw yàlla nañu yàlla suturaal bëgguma yàgg foofu ndax daf may dugal ci yeneen <laughs>